muy suñu fukkeelu daje ak juróom-ñett ci weeru mag wi dëppoo fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi tamit chehru ramadan ñuy dajewaat tey ji suñu waxtaan bi ñu duppee sous l'ombre du ramadan démb ñi ngi nekkoon ak yéen ci jëf yu màgg jëf yu kawe yoo xam ni yonent bi alei salaatu wasalaam nee na keppaar gay am ca àllaaxira ña nga xamee ni ni ñoo melowoon jukko yooyu yàlla da leen cay keral jamono bi muy àtte ay jaamam ñu doog faa jóge dem aljanna loolu nag moo taxoon ci keppaar gi ñu fàttali ko woon ngir yeyoo keppaarug dem ëllëg yal na yàlla subhanahu wa taala ca tey nag ñu ñëw ci jëf yi nga xam ni moo gën a màgg ci lu doomu aadama di jëf mbokk xamal ni diini lislaam lii di ngëm dafay teqalikoo ci ñetti wàll ci jullit bi lenn li mooy loo xam ne da koy gëm loolu xol bi moo ko féetewoo mu am loo xam ne da koy wax làmmiñ bi moo ko mu am loo xam ne da koy jëf cër yi ñoo ko féetewoo loolu mi ngi noonu moo tax boo jógontey di julli xol bi mi ngi yéeni toroxlul yàlla lammiñ bi mi ngi jàngal quran ak di def ay zikre ak ñaan jëmm ji mi ngi taxaw di rokkoo di sujjuut di toog lool lépp mbokk mooy daje diine doogo mat ci doomu aadama bi yooyu bu ci manqué rek da ngay gis ni diine yi doomu aadama baaxatul loolu moo tax ba lan laa jëkk wax mooy xol kon xol mooy fondement tey jii waa ji nga xam ne dafa bëgg a yëkkati bâtiment ak lu mu dof dof dof du ñëw rek jël birig yi teg ci kaw suuf ne day yëkkati su ko bëggee defit du sori fokk mu gas ab fondement dugal doogu yëkkati fondement boobu nag mooy la nga xam ni dafay sax ca biir xol ya moo tax bokk na lu jullit war a gën di itte woo xool na am war nay bàyyi xel ndax jàppe bi baax na julli gi baax na yére yi set na bàyyi jëf yu bon yi waaye la gën a itte woo nag mooy la nga xam ne mooy ab xolam mbokk xol day feebar xol day lëndëm xol day dee suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñuy wax ne heure boo xamee ne jaam bi def na benn bakkaar day nekk benn point bu taf ci xolam su tuubee yàlla dindi point bi su tuubul ba beneen point ñëw tafu fa beneen ñëw tafu fa ba day mujj xol bi ñuul kukk ba xol bi dootul mën a ràññee lu yàlla bëgg ak lu yàlla bëggul moom la borom bi di wax ni كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من ديدت نكنا كي دي مورو تي سن خلبا لاني نيكون ديكا جيف لولين موتاخ با ني غاي نيميكو سييري ديكا نيميكو سا جيمي جي نوني لا جوليت دي وار دي نيميكو خولم با خلبا ديبونا اك خول باغا خاميني ني موم لا سوني بروم يالا گرم يرنتي باب صلى الله عليه وسلم من يوخني إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم سني بروم مني ولا سني يرنتي عليه السلام مني سني بروم يالا دي دخول لغا خميني موي سين ملوكاني ndax ki mo walla kii moo ëpp doole walla kii daa xees walla kii daa ñuul du xoolit alal ci ndax kii am na million walla milliard wala miil lan la yàlla xool mooy xol bi ak jëf ji looloo tax waa ji nga xam ne xolom sell na la muy def da ko yéene ci yàlla rekk a tax yëkkati ñaari dërëm ca la ko yàlla wërsëgal saraxe ko ku mel noonu moo raw ci yàlla waa ji jëloon un milliard tabax ci juma te bam koy def ngistal rekk a tax looloo tax milliardam boobu yàlla xoolu ko gannaaw bi it jëf ju baax ka muy jóge daa ñuulam daa ñaawam daa gàttam góor ak jigéen ak yooyu yépp amu ci solo la ci yàlla xool kay mooy ndax yéene bi sell na ndax jëf ji yàlla dig digle na ko ñaari moom bu amee kam jóge kum mën a doon suñu borom yàlla xóolatu ko lii mbokk kon di mbir yoo xam ni ku ne war na cee bàyyi xel looloo tax alxasanul basari ki bokkoon ci sango ñu ñëw gannaaw saxaaba ya daana wax naan ay yéen nit ñi nemmeeku leen seen xol yi والله ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بصلاة ولا صوم وإنما سبقكم بما وقر في قلبه من الإيمان من أي نيني مانجل دي أبو بكر الصديق دي لتهم الرو تخيب ترولين قال له واي دمكو باكو جريد نتاي سو خول نبري نتاني تنيوم soo leen waxee ku gën ci jaami yàlla yi daañu la wax yonent yàlla muhammad waaye gannaaw kooku nag ah gannaaw kooku sëñ caam nga laaj keneen mun ne gannaaw kooku sëñ sow nga laaj keneen gannaaw kooku ilaaxiri te mooy jàpp nañu ñetteelu diine keneen la waaye mbokk déedéet xamal ne diine ji ka ci gën gannaaw yonent yàlla muhammad mooy abubakarin saddiq radiyallahu anhu gannaaw ba omar gannaaw ba ousmaan gannaaw ba ali gannaaw ba ñay doog a ñëw doog a ñëw ca ñooñu mooy ñan mooy sahaaba yi wuroon yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam kon abubakar boobu la xasan doon wax ne xam leen ne lim leen rawe du julli gu bari ak bari ñoo xam ne liñ julli ci lislaam abubakar julliwul sax genn wàll ga liñ woor ci lislaam abubakar wóorul genn wàll ga liñ sarxe abubakar sarxewul genn wàll ga waaye lan la leen rawe mun a mooy la nga xam ne daal saxoon ci xolom ci ngëm yàlla gu mat sëkk ci sellal yéeneem bu mat sëkk jëbbalul yàlla wommatul yàlla gu mat sëkk lool rekk fa la rawe la nga xam ne mooy yeneen jaami yàlla yi mbokk jëfi xol yooyu buñ koy xool dañuy fekk ba ca gën a kawe ngi nekk la nga xam ne moom mooy yéene moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci benn xadis boo xam ni mbooleem téere fiq yi soo demee base la cay doon ca mooy lim ni innama al amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa jëf yépp day mi ngi tege ci yéene ca ku nekk day dañ ko jagleel la nga xam ni moom la yéene bokk jullit yonent bi alayhi salaam ca la ko détaillé nee na koo xam ne bi ngay gàddaay gàddaaye Makka jëm Madina la nga doon wuti mooy ngërëmal yàlla ak dimbali ji yonent yàlla ba ku mel noonu day dana am tuyaabay ju dëppoog loolu waaye koo xam ne bi muy jóge Makka dem Madina mu ngi dem rek ngir changer dëkk ngir mën a am fu mu liggéeyee walla ngiree gis na soxna yu gàddaay mu bëgg dem ngir takk ci ñoom mu ne kooku du ca am pay lu dul lëm yéene woon lool nag mbokk ñu gis ñaari gaay yi ngi bokk seen benn giléem jóge Makka dem Madina waaye lan moo teqale seeni jëf mooy la nga xam ni moom lañu ñu yéene ci seen biir xol ya mbokk yéene boobee nañu xam ni dana séddilikoo ci ñetti mbir mbir bi nga xam ne mooy mbir bu jëkk mooy jaamu yàlla yi yàlla santaane loolu moom fokk nga yéene ne yaa ngi koy def ca yàlla tax nga koy def bu dee yéene ba sellul ci ne yàlla tax nga koy def yàlla subhanahu wa du ko nangu na doon loolu julli la koor la aj màkka la lum mën a doon bépp farata bu la yàlla sant nga koy def ci bi nga koy def yàlla taxul loolu lañuy tuddee tuddee ngistal loolu yàlla du ko nangoo bu dee bi nga koy defit àdduna tax boo cay ami loolu ba tey yàlla subhanahu wa du la ko nangul fokk koy jëf ji nekk li ñuy tuddee xaalisan sawaaba mooy jëf ji bi nga koy def yàlla rek a tax waaye nag mu dëppoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa beneen mbir bi mooy lan mooy la nga xamee ni nii ak moy la nga ne danga koy def fekk yaa ngi yéene ni yàlla tax nga du ko def mbokk loolu doo ci am benn tuyaaba mi ngi noonu doo ci am benn tuyaaba masalan waa ji demoon di carte ne daa yéene moom bu gañee ci carte gi kat da ciy dem makka wala tabax jàkka mbokk loolu nga xam ne moom la yéene ca bakkaar bu bon boobi yàlla subhanahu wa du ko ko nangul lépp loo xam ne nii bakkaar la nga yéene ko muy jaamu yàlla yàlla subhanahu wa taala du la nangul loolu dana fàttali lu ñuy nettali bu jëkk ca Palestine ay jigéen ñoo xam ne ñu bëggoon lu baax la ca xamuñu diini dañu daan dem dajale yalwaankat ya ca mbedd maag Euh, ñu ñàkk euh, pexe yaak yépp nekkat ñii daal comme ñoom amuñu ay soxna ci ay nit lañu dañuy jaamoo yàlla di leen jox seen bopp ci duñ ca laaj dërëm mbokk loolu suñu borom yàlla du ko nangu jëf lu mu sell sell sell waaye cosaan ba nekk bàkkaar yàlla du la ko nangul bokk na ci loolu mbokk mooy bidaa bidaa yonent bee tere looloo tax boo ko defee yàlla du la ko nangul mu ngi noonu waa ji jàppoon ne yàlla daal juróomi julli la sant waaye man daal dëgg-dëgg dama koy far def rek fukk jàpp ne moom fu mu jullee fajar day dóor beneen fajar julli tisbaar dóor beneen tisbaar ila axiri mbokk ki xamul diini <coughs> mën naa wax ah kii de li muy def baax na waay lu tax muy ak julli la saxal ci julli yàlla ko santaane moom mi ngi def li yàlla santaane coobare wu ne def ci leneen lu yàlla santaane waaye mbokk loolu amul benn borom xam-xam bu am gën jaa tuuti ci xam-xam lu dul danaan ko sa jëf jooju lu xaram la suñu borom yàlla lim ñu farataal mooy julli juróom te yenen ti balay salam terene ne julli ken du ko def ñaari yoon ci benn bis mi benn waxtu ba loolu nag moo aju ci lépp lu ñuy tudde bidaa li ci gën a dugal nit ñi mooy dañuy jàpp ne lii ak jaamu yàlla la kon su ma ko defee ca yàlla tax baax na déedéet mboo ko julit bidaa du jaamu yàlla lan mooy bidaa mooy nga sosti diine ji doxalin boo xam ne doxalinu jaamu yàlla boo xam ni yonent yàlla muhammad mësu koo jaamoo yàlla ay saxaabaam mësuñu koo jaamoo yàlla yow nga sos ko di ko jaamoo yàlla loolee mbokk yàlla du la ko nangul mu des nag beneen yéene mooy ci li nga xam ne yàlla da koo daganal yàlla daganal ñu lekk yàlla daganal ñu solu yàlla dagganal ab liggéey masalan waa ji nga xam ni dañ koo indil lekkam mbokk lekk googu bu la neexoon léegi mu nekk jaamu yàlla te muy lan mooy bi nga tiimee lekk gi nga ne bismillah jëfandikoo sa ndeyjoor lekk yàqu bi nga paree nga ne alhamdulillah mbokk lekk googu nekk jaamu yàlla ci yow nelaw bàyyi ma yéeg yéefee rek jullit ñéppay nelaw waaye jullit nelaw jaamu yàlla la koy def te mooy na nga yéene dem tëddi nelaw def ay askar ya yonent bi doon def daa di tëdde sa wetoog ndeyjoor yéene yeewoo ngir waxtu julli nelaw yooyu yépp jaamu yàlla lay doon bépp liggéey boo xam ne yaa ngi ciy liggéey nga jël ko rafetal ko xooloo ca boroom liggéey ba xooloo ca xaalis ba mais nga jàpp ne lii ay nit dañ koy jëfandikoo nga rafetal ko ci yàlla tax yéene ci ngërëmal yàlla maçon ngaam menuisier ngaam artisan ngaam informaticien ngaam lu mën a doon sa liggéey boobu day wëlbatiku nekk jaamu nag di mbir yoo xam ne lu jar di xam di jar di teqaleele ca mooy kon bépp jaamu yàlla bu yàlla santaane fokk balaa baax yéene ba sell na yaa ngi koy def ngir yàlla bu yéene bi sellul baaxatul bépp bàkkaar yéene ba baax ak ñàkk baaxe yem képp yàlla ju subhanahu wa taala du ko nangu ca bokk na ci bàkkaar yi bidaa amma lépp li yàlla daganal ñu koy jëfe ci àdduna soo ko jëfee rek yéene woo ca dara amoo ca benn bàkkaar waaye amoo ci benn tuyaaba amma boo ci yéene ngërëmal yàlla daa di ca am ngërëmal yàlla jalla wa ala mbokk nañu xam bokk na ci importance yéene lu ñu ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam béggéle lu ñu ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moytuloo nee xeet bii day nañu xam ne ñeenti façon xeet la yàlla séddale nit ñi benn xeet bi mooy ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam may leen alal xam-xam ba ñu koy jëfe ca la neex yàlla te ko jàngale di ko jëfe alal dañu koy def fa la neex yàlla ñii day ñooy ñi gën ci nit ñi ñaareelu catégorie bi mooy ñi xam ne amuñu xam-xam amuñu alal waaye ñi ngi mébétoon ay waay ak a neexoon ma xamoon tey jii li nga xam ne nii diw xam na ko ba di man di jëfe ni muy jëfe di jàngal nit ñi comme ni muy jàngale nit ñi wala aka neexoon borom alal ji day alalam ji nim ciy jaamoo yàlla aka neexoon manit ma amoon alal ba mën a jaamoo yàlla ni muy jaamoo yàlla yonent bi alayhi salaam nee ñaari catégorie yi ñoo yem ca yàlla jalla wa ala donte ne deuxième catégorie bi amuñu xam-xam amuñu alal waaye seen yéene sell na ci yàlla ne suñu amoon xam-xam duñ ko jëfandikoo ngir puukarewu duñ ko jëfandikoo ngir nit ñi topp leen daañ ko jëfandikoo jëfe ko jàngal ko nit ñi suñu amoon alal la tax ñuy ñee borom alal ba du immeuble bu rafet ba du kat-kat ya du soxna yaag tool ya leen na doom nga tax ñu ñee ko ba mu bëggoon a am li ñu am mooy liñ ko gis mu koy def fi sabilillah ñaari catégorie yi ñoo yem ci yàlla jalla waala ñan mooy ñetteeli catégorie bi mooy ñi nga xam ne yàlla may ñu leen xam-xam xam-xam boobee ñu jëfandikoo ko nax nit ñi noggatu leen jël seen alal comme nam dale woon ahlul kitaab dale ko ñu bari ci ñuy woote woo sëriñu diine tey gannaaw ba waa ji am alalam alal ji jël ko di noos guddi di noos bëccëg di suuxat ay biddaa di yàq ñoo kooku mbokk mooy kii yées waaye ñeenteelu catégorie bi mooy kan mooy waajee nga xam ne amul xam-xam waaye boroom xam-xam bee nga xam ni mi ngi jëfandikoo xam-xamam ndax nit ñi ñu topp ko di ko jox seen alal muy puukarewu seen kaw mi nga ko ñeewoon ak neexoon mu xam lim xam ba mën a profitoo ci ne waa ji di profitoo wala boroom alal bee di pasar pasare alalam di ko yàq ko noos e waay diw mi ngi dund ak neexoon ma amoon li mu am ba man di noos ni muy noose yéen ñaar yéenay ànd yowmal qiyaama lii mbokk dalay woon lan mooy importance yéene ak nit ki kan ngay war a ñee moo tax yonent bi aleyhi salaam jullit bul ñee lu dul ñaar ñii boroom xam-xam bi koy jëfe di ko jàngale boroom alal bi koy jël di ko dépense guddi di ko dépense bëccëg te fekk yàlla dong tax mu koy def mbokkoo ba ñu jëlee ci yéene boobu ñu xam ni bokk na ci ñaareelu jëf bi gën a am solo bu doomu aadama bi di war a bàyyi xel mbokk moom mooy tuub gu sell goo xam ne day jóge ci biir xolam lañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day moo ñu wax ne kullu ibnu aadama xataa wa xayrul xataa'iina attawaabuun mboolem doomu aadama da ngay def bakkaar ki gën ci ñiy def bakkaar nag moom mooy ñi nga xam ne buñ defee bakkaar tuub bal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sax law lam tuznibu la zahaba allahu bikum ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم بدلون الدوم آدم يدنو نكون ندل دف بكار يل جللين في اندني دف بكار مبالين لول نك لني ولي نكون يلا نبندي بكار دي أمتنون وينك نونيت لنو bindi ñu mën a tuub bakkaar dellu ci moom bind ñi ñu mën a sax fitteerlu ci bakkaar su ko defee yow mi nga xam ne yaay boroom xel ngal la way del bàyyi xel sa diggante ak bakkaar boobu ak la lay puus jëmale ci bakkaar ndax xam ngeen ni dañ naan fagaru moo gën faju bakkaar du ne danga koy def ba pare du xool noo koy tuube waaye dangay xool noo koy moytoo avant ngay xalaat bi ci dugg amma bu yàlla dogalee nga tarxiis ya nag tuub doogu ñëw te mooy yow mi dox ci tali bi xam nga ne dangay def attention sa kéemtalaal kattan waaye léegi nag sa tànk mën na ci am pax tarxiis wala boog nga fakkastalu loolee mbokk su boobaa yépp da ngay gën a defar attention tege ci yoon bi loolu moo tax fokk ñuy bàyyi xel la nga xamee ni nii mooy cheytaan de jëfandikoo ak doomu aadama ngir alak ko alkaandi li gën a màgg mooy mu fexe ba dugal la ci ak kéefér dugal la ci bokkaale ak sa boroom nga xam ne mooy tax nga alku àdduna alku allaxira bu dee ne loolee munu ca benn pexe ci yow mu galgal la fim mu galgal la ëpp ci nit ñi tey mooy ci ay bida yoo xame ni nii dala koy sawarloo taaralal loo ko ba am na ñu bari ci jaami yàlla yi seytaane taaral ne biddaa yooyu bañ far sax bàyyi la nga xam ne mooy farata ya buñ ko bàyyiwul it daañ ko desal gannaaw waaye biddaa ye moom mooy la nga xam ne mooy priorité ci ñoom seytaane bu mënul loolu nag ca lay doog a dem ak yow ca bakkaar yu mag ya <clears throat> galgal la ca mooy bakkaar yi alagaati su dee mënul ci loolu mu dem ci yow ci bakkaar yu ndaw yi nga xeeb ko naan ah lii de du dara nuyu jigéen ñaak xool jigéen ñaak wax yenn wax yaak jàpp ci yu ñàkk solo yoo jàpp ne lekk ko du dara loolu lay ànd ak yow ba mën la ca alak boroom xam-xam yi dañ naan dana dem ak yow ba ci yi nga xamee ni nii sax dafa dagan rek mu xuus loolu ci ba yàqal la lu bari ci sa diine asalan tey lu bari ci nit ñi mbokk portable seytaane am na ci ñun cir bu rëy rëy rëy rëy suñu dellu woon suñu gannaaw mbokk suñu maam yi foo leen masaan fekk buñ deful dara ñi ngi gàddu seeni kurus di zikrullah amma kurus baax na ak baaxul loolu taxul may wax la ma ci jublu rek mooy xamal ne ñi ngi doon def zikrullah wala ku ci yorul sab kaamil tey nag yàlla nattoo ñu portable màgget yu suqeeku bi jaw ngay gis ne des heures et des heures la ñuy sëgg ci loo xam ne mën nañu wax sa xaramul masalan ay information diw nee na diw nee na vidéo tel ah audio tel vidéo tel la koy wax la koy nettali la xew fee la xew fee mbokk yii quinze minutes trente minutes nangam minutes ba ñu calculer dans les vingt quatre heures lim sëgg ci portable am dana jël lu jege cinq à sept heures de temps mbokk loolu ci seytaane la jóge ñaata isibi alxuraan nga ñàkk foofu ñaata zikrullah nga ñàkk foofu ñaata toogoon di xalaat ci kawtifi yàlla yi nga ñàkk foofu ñaata ñaata loolee mbokk da ngay gis seytaane foofu it dafay ah dugal doomu aadama bi bal da ngay gis ne seytaane dana dem ba sax fekk jëf yoo xam ne ay jëf yu yu ndaw la moo xuus la ci yow ba fàtte loola la nga xam ne ni moom mooy nekkoon priorité ba gën a tar ci yow ci priorité ca loolu itamit ñu war a góor a bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mbokku yii mooy pexe yi nga xam ni yépp képp koo xam ni yëg na ci yii première mbir mooy na ko moytu kemtalal kattanam amma su demee ba yëg na nag tabbi na ca mu daal di nag wëlbatiku tuub la nga xam ni nii mooy tuub goo xam ne nii tuub gu sell la bakkaar yaa ngoo am na lu ñuy tudde kabair nga xam ne day jur mbugalu àdduna di jur mbugalu alaaxira am lu ñuy tudde ay bakkaar yu ndaw yoo xam ne su ko nit ki tóobul mën naa dem dem ba yàqal ko <clears throat> la nga xam ne nii mooy la bare bare bari ci wàllu diineem mbokk jullit tuub googee nañu xam ne dafa am ay charte yuy tax yàlla subhanahu wa nangu ko charte ba ci jiitu mooy nga daldi bàyyi bakkaar ba yaa nga ca woon bàyyi ko ca saasi charte ñaareel bi mooy nga rëccu cay bu démb doon na tey day carte gi njaaloo gi lekk riba gi xen yi ak diw yi ak yeneen ak yeneen yépp cay li de bu démb doon na tey wax dëgg duma ko def ñetteel ba mooy nga dogg ci ne yàlla day lii fas yéene naa dootuma ko defati ba baa may daje ak yow loolee mbokk da ngay gis ne ca ya gën a am solo la bokk amma bu dee ne nag aq doomu aadama moom fokk nga delloo ko aqam doo jël kalpeb jaamur ba pare daa di ne ah tuub naa rëccu naa ca nga xam ne borom calpel baa ngi nii déedéet da ngay dem jox ko calpem ba pare doogu tub doogu rëccu yii yépp mbokk bu dajee ca xol ba su lammiñ bi ne astaghfirullah même bu doon benn yoon yàlla subhanahu wa taala dan la baal lii kon di mbir yoo xam ni ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu bàyyi ko xel moo ko xamal ne nekk sa bakkan bii moom moo lay xiirtal ci bakkaar moo lay xiirtal ci tuub moo tax suñu boroom tudd ko ñetti bakkan ci téereem bu tedd bi bakkan bi jëkk mooy li ñuy tuddee euh, an nafsul euh, nafsul ammaratun bi suu bakkan bi nga xam ne lu bon lay déggalaate mbokk bakkan lu ëpp ci jaami yàlla yi seen bakk bànneexu bakkan rek lañ topp ca mooy bu ñu xëyee lañ gis ne seen bànneex la seen intérêt ca la nekk ndax neex na yàlla neexul yàlla seen yu nekku ci mbokk bakkan bu bonangoo mooy amaaratul bi suuf mu am beneen bakkan bi ñu tudd nafsul lawaama mooy waajoo xam ne day ku sàggan la waaye nag fu mu tarxiisee def bakkaar balaa yàgg rek mu tuub ricc dellu gannaaw bakkan bi yedd ko mu ruub tuub dellu gannaaw waaye nag balaa yàgg mu tarxiisaat ca bakkaar ya tuub dellu tuub dellu gannaaw lol lañu tudd an nafsul lawama kooku mi ngi ci ak diggu doomu mi ngi noonu amma nag bakkan ba gën ci bakkan ya muy an nafsul mutmainna mooy ki nga xam ne bakkan na moom dal na ci jaamu yàlla foo ko fekk ci jaamu yàlla nga koy fekk moom la gis muy jëf mom la dégg muy wax tarxiis ya nga xam ne daal day am ci moom mooy loo xam munta ñàkk yàlla bind ko doomu aadama te hatta yonent yi mucc ñu ci woon loolee dong la ñuy mën a wax ci moom waaye bakkanam moom dal na ci nangul yàlla jébbalul yàlla toroxlul yàlla loolu la ñuy tuddee an nafsul mutmainna moom la borom bi di wax naan ya ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati e yow mi xeex ak sa bakkan ba bakkan boobee nekk bakkan bu dal wommatul yàlla moytu ay bakkaar bëgg ndigali yàlla bañ sa biir xol lépp lu yàlla xaraamal suñu borom yàlla mu ne dellul ci sa borom bis booy dee nga ànd ak yàlla gërëm la yewit nga gërëm la la yàlla di teeroo gannaaw ba nga dem dugg ca jaami yàlla yu baax ya muy nabiyiin siddiqiin shuhada ànd ak ñoom ñépp tabbi ci biir aljanna ya mbokk bakkan boobee lañuy ñaan yal na subhanahu wa taala defal ñu defal ko njaboot gi defal ko bépp julit su ko defee kon yéen waa keppaar gi mi ngi nii yegsi nañ ci 30 minutes yi ñuy ah, jëloon di ko fi daje insha allah dañuy dellu bu subaak jam. bu ñu demee yit ku nekk ci ñun bañ di ñaan xam li waral gi bi yàlla subhanahu wa taala wàcce ci kaw suuf ñun ñëpp fu ñuy toll nañuy ñaan yàlla jàll wa ala yal na yàlla teggi ko moom mi nga xam ne muy yunni armem nu mu ko neex yal na leen jox ndigal ñu dellu fañ jóge woon mboolem ñi ci jota faatu ci ay julit yal na leen defal jannatul firdaws yi muy seen wàccuwaay mboolem ñi cee tëdd ca lalu hôpital ya yal na yàlla yëkkati leen ci jàmm mboolem ña nga xam ne dalagu leen woon yal na ko fa yàlla yemele loolee mbokk mi ngi noonu yal nañu yàlla jagleel aafiya fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh